nga yàpp man jël na ko mais jiw maa fayu d'accord maa ngi cokkaas boo gisee maa ngi laal sax laa yoo xam ne sax baaxut da koy def juste pour freiner ko ko bu dal bi mu dalee ba boo gisee tànk yi dafa jaxasoo mhm. bi mu jaxasooyee mhm. daa dellusiwaat tànk bi jëwatu sama kii rek di laaw dóor laaw foofu nag moment boo ko tibbee nga ko am bi nga tibbee dawoo ak moom da nga tibb tourner en rotation ak moom mu déséquilibré mais loolu keneen kooko kooko defoon tamit mais loolu kooko keneen kooko defoon tamit dafay daanu nit bu déséquilibré rek pour mu taxaw day day jafe d' accord def na erreur mais yow aussi tu as usé maanaam da nga da nga intelligence yaa ngi may dégg da nga da nga da nga maanaam da nga ci combat bi. man dama ne so coach yi dañoo ñëw ndeysaan maa leen nuyu bu baax. sama mhm. mhm. mhm. ban coach moo la ma indi. laat ok ok ko na jàpp mu yóbbal ko. d' accord dañoo ñëw après ba daan ñëw benn suba la combat bi. affaire yi métti ñu taxaw di ma forot lu ma xam ne suñu ci affaire yi comme ni ñu préparé Modou ñu préparé ma nii. ma ne barke Serigne Sall Mbacké ma gagné naa maanaam bu laawee ba ba ba ba ba nga. saa yu ma rombee ma xam ne man comme waaye romb bala muy bala muy jekkalaat. day fekk exploité nga ko parce que différence bi ci quelques fractions de seconde euh, lañ ko joué. Mhm. Euh, nest pas. Mhm. Euh, daan nga caatu xar yàlla. Mhm. jël bu jël bu leer. à la surprise générale nag franchement parler parce que bi ngeen taxawee comme ça présentation bi waa daf la long large la. waaw n'est-ce pas mais moom man mais man war a seree ma lay wax nii nekkul ne tey télé bi moom ak kii mën na ji di wax billaahi wallaahi wal kitaab bi dama duma si déggéew bi man nag ko xool ko fixé ko ma ne sama pawa bi ma sama rako pawa ne ko barke Seydina moom ci maa ko doole ah loolu wax nga ko barke alxuraan wax nga ko ki nga àndal ci man dama ko ne barke Seydina Mohamed kii maa ko doole dama koy daan ñibbi d'accord nii laa ko wax ci diggéew bi d' accord mais xam nga waaye ba koy wax boobu mooy jàpp xëy na. waaw waaw waaw mais damaa ñëw dama bi ma waxoon damaa ñëw di def ci moom directement xool ko. ma taxaw mu taxaw ma wëññi ko ne sama paa bi ma naan ban suñ tubaab kii maa ko doole. boobu moom mën na jàpp ne da ngay jéem a dalal xelam. mais boobu yow li ngay wax da nga ko gëm. dama ko gëm kuy kon taxaw si Bour Sine cent cent quarante kilos cent cinquante kilos. Bour Sine man. Bour Sine bu Bawol. waaw Bour Sine Bour Sine moo war a bëreeg mobile. bokk ñoo ma ko fi may préparé combat bi maa ngi koy sant bu wér. tey ci man coono yu méttee méttee. ma ne ko saa yi man xam naa nekk man quoi. xam ne billahi walaay ma dawale. d' accord euh, après victoire bi. Mhm. n' est ce pas. Mhm. victoire bi leer na signé nga victoire. Mhm. ñëw nga yàgg mafia bi feete ngeen victoire bi. instant bi da ngay jël vacance wala danga ko ciy tegal. non xam laa la may sama naa lépp sax li léegi lépp laay bàyyi instant bi. ko làmb ji nga nekk. lan euh, euh, l'armée l'arme fatale de Réfane l'arme fatale de Bawol. Euh, benn instant ne nga instant bi bàyyi nga job mhm. ci làmb ji nga nekk n'est-ce pas mhm. sa paa yi ñoom ñoo la dar ne la bëreel mhm. entraînel coob récupéré ne nga làmb mooy sa métier n'est-ce pas xanaa instant bi nag bu victoire bi nga jógee normalement war nga mën a enchaîner waat beneen combat avant fin saison ñu ngi may wax combat ñu ngi may wax ay combat Réfane grand combat Réfane. ok ñu may wax combat Bambey. ñu ngi mhm. wax tamit combat Dakaru Ndiaye bi. Dakar mais ci arène bi ñan ñooy say potentiel adversaire ñi war a jël avance bi rek ñoom instant bi jàkkaarloog armée ñan la. tey lamb ji tey daa ah, yu moytu. Ah. moo fi yow yaa ko maanaam ay boo yuy fente ñoo xamante ni dañuy ñaan la ñooñ ñooñ adversaire gan ngay ne doo fente n'est-ce pas doo tànn lu nooy n'est-ce su ma doon tànn ma ma jël booy bii nii. armé say adversaire ñan la. ñan nga war a bëreel. yaa ma gën a xam yii booy bu ma dugal nag du ma la limal de du ma la laaj ji tootul de xoolal bu dee da ngaa ragal booy coow jibul man mën nañ avancé boo ñemee booy rek ne leen xoolal jël leen avance bi ñëw ñu bëree. yow yaa ma war ne ma carrément armé nag comme que daan xam naa say adversaire de. xam naa catégorie bi nga bokk. waaw yaa ngi may dégg euh, fi nga nekk loo bi nga bokk. Liss Ndiago moo fa nekk caatu rëbës caatu fora ardo général Kairé imposé bu Wakaam Gambien bu Rëbës. ah a ah, ah non cercle bi laa la wax ci loo bi ñoo fa nekk d' accord d' accord coo jibul ba tey ba tey coo jibul mais daal loo bi daal ñi ma la limal ñoo fa nekk ay ñoom buusita ñoon ñoo fa nekk ñoom caatu rëbës ñoom ñoom ñoom ñoom général Kairé ñoom euh, Liis Njaago ñoom euh, euh, imposé bu wakaam ñoo ñoo nekk ci liste bi mais yow sa wàllu bopp ñan ñan nga pare pour bëreel ak kan. am na tamit kootit na Moustapha ko bëgg de. kan la. réparé maa ngi maa ngi nelaw sax réparé moo daan teex jël keroog. réparé foofu nga ko dugal ci loo bi. daa am lu mu daa lu mu yore waa PA. kan ñun ku ñu doon ñu fayu. réparé eh. réparé réparé réparé rek Marley eh. dafa am lu mu amel waa waa PA. man nag du ko bëgg de am na Moustapha moo bëgg te moom bul dugal am di Moustapha am di Moustapha nekku fi man am di on se connaît très bien bo boo wala da ngay wax sa wax bopp yow da ngay taxaw né ma xol man ma né diw man ma tuddu diw mais mais bu fi tudd ay am di Moustapha waaw waaw da nga ne réparé waaw est ce que yow ñeme nga combat bi wa man duma adversaire non est ce que est ce que question la est ce que ñeme nga jël avance réparer réparer bu réparer réparé raku marlé est ce que ñeme nga jël avance bu gaay bu avance bi ñëw fii mën gaay indi dem di dem réré ci ko parce que ah, nga dem jëndi dibi avance su réparé ah yow avance su réparé eh booy may ma tuuti armée armée ñeme nga jël avance su réparé dem jëndee ko dibi. bu ñëwoon tey dibi laa ko yóbbu du ma ko yóbbu fenn dibi ko yóbbu gars yi lekk yàpp dina rees est ce que yàpp dina rees est ce dina rees. ok avance su réparé waaw voilà kon réparé yaa moom loolu waajal bu baax réparé bu école papa kan la ñuy wax ni de. réparé mi daan teq jël keroog. wax naa li ma la wax pare naa loolu kon jàppal ni armée réparé na combat bi taxaw n'est-ce pas. mooy ne ay ñoom Liss Ndiago yaa ko tudd man ko ca daan bëgguma ko tamit. ah ki ci daan ngay xaar Liss Ndiago ak Caatu ki fa daan. ku ca daan ku ca daan waaw waaw léegi nañ benn benn mbër mi euh, ñeme nga ñeme nga Liss Ndiago. ñeme dama damay laaj rek est que ñeme nga ko est-ce que. kan mooy wër. waaw mais da booy nag booy booy booy bàyyi ci ngay sosal nag yow da ngaa a gis Liss Ndiago am fi combat bu yomb. da nga da nga gis mu bëri combat bu yomb. ok doxal nañ seen combat. sottiwul. mu ok d'accord. mais benn cercle la benn loo la a fa nekk yéen a war a dalante ci seen biir ah tôt ou ngeen di bëre tôt ou ngeen di bëre mais moom moo la bëgg sacrifier nag kan mooy Amet ci gars yi dalaa bëgg yoola de lu leer laa lay wax parce que bu la yéene woon bu bëggoon nga dem bu bëggoon nga dem du fi tudd Liss Ndiago kan la en kee ah, la non kee kee génne ko sa staff kii la ku ku la tuddal Liss Ndiago génne ko sa staff parce que euh, lu ma am ci am lu ma am na combat bee ko ñor sa diggante ak Liss Ndiago attan nga coowam coow coow Liss Ndiago attan nga ko Ndiago bi le phénomène de jàmm gën attan nga coowam moo la ëpp coow de mais moo moo la ëpp coow ok ah nangu nga loolu waaw léegi léegi est ce que nga coowam ah, ah da nga ma delloo question bi waaw moo la ëpp coow waaw waaw ma wax loolu moo la ëpp coow est ce que attan nga coowam euh, da ngay non da ngay mobiliser loolu moom wax ji yàqu la parce que gis nañu non gis nañu gis nañu wax dëgg yàlla gis nañu ñeent gars yi jógee ba bawal ñëw ba fii pour supporter wax dëgg yàlla mobiliser nga macha allah mais dama la ne le phénomène de jamagal le mbër dee njaago est-ce que atane nga ciowam wa d'accord d'accord ak ok en fof nga ko tek derbi Bawol jàmm gën Ahmed Lagrose frais nee na Liss foofu nga ko teg mais Liss benn defet la am benn defet boobu kese mennum Ahmed Lagrose moo ko freiné waaw mais Ahmed Lagrose war mën a daan keneen Ahmed Lagrose bi mu daanee Liss Ndiago freiné na keneen dugaat na fi freiné Petit Lo nest pas kon loolu loolu c'est tout à fait normal gis nga sànq bi may lim fàtte naa sax lim turam yéen a bokk benn cercle bi ngeen nekk mais am na daan Liss Ndiago am nga bëre bu daan Liss Ndiago waaw damay laaj rek sama question laa samp est-ce que armée am nga bëre bu daan Liss Ndiago mën naa ko jàngal pas d'accord je pas d'accord waaw mais man je pas d'accord loolu nga wax man d'accord ma man ko jàngal bëre mën nga ko jàngal bëre ko ok ëpp ko caay caayu lamb loolu lépp yaa ko wax est-ce que xam nga ni li nga wax ni ko seetaan waaw xam nga moom dafa am na ci combat du ma toog ci non da nga ne kii daan yow kay yow da nga dugal sa bopp instant bi parce que euh, raka ji gis nga li wax nii mënatoo koo weddi parce que déjà xam kan non da nga ne daan non damay benn bennan mbir parce que bu ñu ci liste dañuy dem ci caatu Rebeuss nest mais sa digganteeg liste Ndiago dafa war a leer n'est-ce pas euh, waga de Rebeuss kooku kooku loo wax ci moom <laughs> caatu Rebeuss la waga de rëbës non bu moom ko wax dañoo toog mu ne ma grand bi ma ne ko naam mu ne ma booy dañuy waga wagal waaye ku dugg rëbës ah. ma lijjanti say dossier tey ko ne nee na yéen da ngeen di waga wagalu pour te pour te dire boog ma wax la li am caatu rëbës nee na yéen booy yi da ngeen di waga wagalu mais waga parce que foofu yaatuwul xam nga balaa da ngay teg fu da kon daal yow kon yow dugg nga fa kon kon dugg nga rëbës yow dugg ba fa defoon naa sama combat Gambien seen combat taxawoon yow booy booy booy booy lu tax nga ne Gambien daw. lu lu tax dafa daw. barki daf may wóor ni tey su ma ko woon léegi léegi ne ko armée nee na da ngaa daw mu ne ma ne combat bi taxaw parce que kooku du du daw. instant bi soxlaatoo ko. instant bi daal li war a taxaw mooy diggante Liss Ndiago ak a Rebeuss ku fa daan. waaw léegi léegi est-ce que am nga est-ce que am nga fitu jàkkaarloog caaturu ba ci biir géew arbitre sifflé a génn seen diggante Armé yaa ngi imaginer loolu. man li ma mhm. est que xam nga ni caaturu euh, ba agresseur la day agressé gars yi ci biir ci biir làmb arbitre day sifflé bala ngay xalaat mu def li muy def pare ci taxawee na le. yow waaw presque même style laa la gisee de benn combat de laa gis nga bëri mu dépassé cinq minutes wax dëgg yàlla sa combat keroog bi am man na une minute bi bu mujj non maa ngi fa maa ngi fa non wax yaa ngi may dégg mm-hmm. mais dafa am beneen booy beneen phénomène mm-hmm. bu yéemee sax bu dëkk géejawaay mm-hmm. bu dul rëyul comme yow mais coowam foo ko nattu wees na fa am fit benn benn booy la bu nekk école Mor Fadam ah xamoo ko ah garaawul boo ko xamul ñu avancé ah, bu bu sita sama xel de ci bu sita la demee ah, sant bi amul doole ay yanan bu Siteu amul doole wa léegi amul doole te xolal xolal fi mu toll ci lamb malik ndjay 37 fu lay beurel yow bo amul malik ndjay 37 fu dang koy jël armée en liste ngeen ni xaar liste ndjago ok instant bi yow sa mafia ñoy wax de say grand ñoy wax nee sa digënté ak liste ndjago mom lañuy xaar man nak japp naani gaari bëgg sacrifier parce que buñ la yéne won lu baax dañuy xol lu yam lu xawa ci touti ñu duggal la fa lu yem moom lu yem lu yem gaa sax lu yomb amul mais ah lis lis njaago lis njaago lis njaago caatu rëbës réparé mm-hmm. n'est-ce pas ñun ngay xaar instant bi na combat yi taxaw waaw moom bëri na daan ba pare euh, euh, réparé bëri na daan kon instant bi réparé armée deux a taxaw mm-hmm. coo jibul maa laaj nga tontu on avance euh, rakk ji question ma lay posé yow bokkoo ci ah làmb ji làmb ji wërngal këpp kan moo fi dàq bëri question bi yow bokkoo ci nag yow maag yow ñu ngi loos ñun ñoo ngi loos waaw waaw ah, yow bokkoo ci làmb ji wërngal këpp kaw ba suuf kan moo fi dàq bëri kan moo ci waaw ah, loolu moom dina xaw a yóbbu non jafewul de question bi jafewul du question pièce de ah, xoolal yow kan nga gën a naw bëreem ci làmb ji kan laa gën mbëri kaw ba suuf mm-hmm. ki nga gën a naw bëreem kan la lamb jaay nii rek. waaw yow booy booy booy bu ma fontoo waaye nag question la laaj question la laaj waaye piégé wu ma la question bi xoolal laaj naa mbër kan moo fi dàq bëre mu ne ma Modou Lo laaj naa mbër ku fi dàq bëre mu ne ma Balla Gaye laaj naa mbër ku fi dàq bëre mu ne ma euh, Reug Reug laaj naa mbër ku fi dàq bëre sax mu ne ma Boy Seye 2 yow kan nga gën a naw bëreem ci lamb ji. waaw léegi ñu wuli dee. Bour Sine. ak non non jox ma kenn jox ma kenn avant tout. Bour Sine Bour Sine bu bawal moo moo dàq bëre ci làmb ji est-ce que xam nga ne ay combat am day metti Bour Sine bu bu daan buy daan day bëre lu metti buy daanu day bëree lu metti Bour Sine mësul dugg ci làmb yaafus buy daan day joxe lu bari buy daanu aussi day joxe lu bari mais jàpp nga ne moo dàq bëre ci làmb ji waaw ci ma jàpp man. d'accord léegi da nga may limal juróomi mbër yi dàq bëre ci làmb ji Bour Sine ak kan. waaw kan nga fi limaale léegi kan kan non kan nga fi limaale léegi beneen wuli 2 wuli 2 da nga koy dugal ci juróomi mbër yi dàq bëri ci làmb ji ah. Bour Sine wuli 2 ak kan Émile François Gomis bu euh, parcelle mboolo Obali Ibou Ndiaye euh, bu Intercept ah. ñëwal mu des benn garga 2 ñii ñoo dàq bëri ci làmb ji waa waa waaw loolu am na yow moom yow moom wax dëgg yàlla parcelle ak bawal ñoo la moom bu waxantee dëgg rek noonu la